oustaz salaamaaleykum daal oustaz ñu ngi lay ziara ci guddi gu màgg gi ci barab bu màgg bi di nuyu al xalifatul muwaqar Seydi Cheikh Ahmed yi di ñaan yàlla yokk wéram te mottali ay sémbam di nuyu ki nga xam ne mooy al imaamul akbar Seydou Cheikh Tidiane Ali Cissé buñ nuyoo ñaar ñi nuyu nañ Medina yëpp bi si faama di la ndokkeel tamit di kontaan ci dalal gi ñu dalal ci barab bi nga xam ne barabu xam-xam la barabu leer la di ñaan yàlla kàddu yi gudd gàtt yal yàlla may ñu tawfiix bi jaay Mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi Euh, jërëjëf Oustaz ñu ngi lay fay nuyoo di la masawu coono nag ak euh, xataay bi wax dëgg yàlla xam nañ jot gi bëriwut euh, yaa ngi jàpp itam lool waaye dagg nga sa it yëpp fas yéene bokk ñun minutes yu néew yi nga xamante ne am nañ ko fas yéene jottalante ak mbokk yi nga xamante ne ñu ngi ànd ak ñun lenn luñ jàpp ne dana leen mën a jëriñ te am nañ ci yaakaar bu baax ne dana leen jëriñ Oustaz ñu fas yéene waxtaanee tey tomb waxtaan bu am solo muy crise des valeurs ak. Euh, yan solution lañ ko mën amal euh, dans les enseignements de Baye Niass euh, mu su fekkoon tey dañuy wax jikko muy lu am solo ci guddi yu mel ni ñuy waxtaanee ko damay faral di wax toujours ne ñu ngi ci jamono joo xam ne jikko yi am na ci solo trop waaye yàqu gi itam bëri na trop suñ bëggoon a xam importance su jikko ci lislaam laata ñuy ñëw ci yàqute gi ak yan réponse lañ ko mënal am amal comme ay solution ci jàngale Baye importance jikko ci lislaam boo ma ci mënoon ñëwal. al euh, oustaz ñu ngi lay nuyu yoonu ñaareel euh, di wax rek ne indi nga tomb bu am solo am na solo am solo goo xam ne booy settantal alquran da nga fekk ne xam-xam dafa gaar nga def seetlu sunna da xam ne jikko mooy cosaan wallahu axrajakum min butuni ummahatikum laa taalamuuna shay'a yàlla mu ne bi may leen di génne seen biir yaay yi indaale wu leen xam-xam kon xam-xam dafa gaar waaye jikko jàng nañ ci sunna yonent salaa sallam ne kullu mawludin yuladu ala alfitrati ku juddu ku ne yaa ngi juddu ci alfitra fitra nag ah, buñ ko bëggee firi nañ déglu sunna firil ñu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog ba mu rañaanee nga xam ne rañaan gi tukkim teranga la ñu jokkoo ñaari karaaf bii def sàngara bii def soow yàlla dimbali ko mu jël soow mi jibril na ko hudiita ilal fitrat ah yow day sa borom daf la orienté jëmale ci fitra ba ñuy déglu fitra mooy lan mi ngi ko firi ci waxu ñaareel ji boo jëloon sàngara si walaw saribtal xamra la xawat ummatuka boo naanoon sàngara si sa xeet wi yëpp dañuy yàqu dañuy bew kon fitra mooy ñàkk bew mel ni yàlla bëgg ci biir ak ci bit kon jikko mooy cosaan xam-xam dafa gaar moo tax booy ñàkk benn ci ñoom ñaar ñàkk xam-xam am jikko moo gën su ko defee nag jikko moomu nag eh, Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu boroom xam-xam yi dañuy wax ne yonent yi kenn ku ne ni la yàlla feeñoo booy ñaan loolu nga koy ñaan mu jox ci ñaari misaal yonte la Ibrahim al Khalil alayhi bi nga xamee ne yàlla wan na ko mbóotam asamaan a suuf bi muy ñaan borom daf ne rabbi arini kayfa tuxil mawta mbiram dékkil affaire dekki mbiram malakoot la moo tax mu ñaan ko yunti yàlla Moussa bi ko yàlla wane kàddoom gu neex mu ñaan ne bi arini anzur ilayka comme am naa kàddu gis laa bëgg léegi mais yuntu salaa salaam mi xam ne yàlla moo ko tànnal moom laa jot yàlla dafa jël jëmmam ji may ko ko waaye nga déglu bu baax bi ko yàlla di tagg jikko la ko taggee Cheikh Ibrahima anhu wàllu yàlla yi kenn ku nekk am na loo armal ci biir wilaayatu Cheikh Ibrahima jikko moo nekkoon lim armal bi muy ñaanal am toppam daf ne boromam na ko ajri fuyuud al ilmi li zumrati yow yàlla dama bëgg nga dawal bëbb yaa ñoom bëb bi xam-xam la ak wërsëg ñeel sama mbooloo man personnel wa haziban axlaaqi ma bëgg man nga baaxal sama jikko lu tax Eh, xaadi iyaad radiallahu anhu daf ne su fekkee ne topp mi buñ bëggee baax na ñaan yàlla njiit yi baax comme Cheikh Ibrahima moo ñuy nampal ci jikkoom ci xam-xamam ci wilaayam bu borom wax ne borom na ko wax siban axlaaq yi kon importance jikko la lay jàngal jikko nag mooy lislaam jikko mooy tasawuf jikko mooy li nga xam ne su amee lépp baax mais al euh, ustaas jikko bu manqué rek dara du baaxat Cheikh Ibrahima nag ci ñàngaleem euh, jikko yi bi mu yàqoo boo seetantale léegi jooyatuñu xam-xam xam nañ lu nekk xam-xam ñi ngi koy nal muy génnee ci fu nekk mais jikko lañuy ñuy jooy baatu jikko nag olof la boo jëlee baat bi nga taxaw ci mooy nañ ko ji ji aajo woon na ndox aajo woon na suuf su baax foog ñu am ay rabbaani yoona koo xam ne bala mu laa jàngal day mel ba pare muy ko lool mooy ndox mi mais foog ñu am jiil boo xam ne dañu am ay référence da référé wu ci kitaab ak ak ñi nga xam ne ñoo yoonu leeru ñaari kàggu yooyu suñu amee nag ndox mu baax am suuf su baax danañ mën a jëmbat jikko waaye bu ñu amee suuf te amuñ ndox jikko du mën a taxaw bu ñu amee ndox te amuñ suuf du mën a taxaw foog ñu am ay rabbaani yoona mais foog tamit ñu am génération boo xam ne dana ne wan li nga xam ne mooy importance jikko moo tax Seex Ibrahima radiyallahu anhu bi mu ñuy jàngal fayda bii dangay dégg mu ne alfatu nafatun qudsiyatun تجذب قلب العبد إلى الحضرة فإن بقي على المجاهدة والتدئير عن رسائل الأخلاق السكنة وإلى طار ويرجع إلى سلامي bay mu ne fatu nga xam ne doon la boo xam ne yàlla da koy may góorgóorlukat yi te alxuraan dañu ko jàngal walladina jahadu fiina lanahdiyanna um subulana alxuraan toujours maa ngi waxale ci daara ji ma ne leen sabil alxuraan da koo góoral mais da ko jigéenal ci benn téere bi su ma sabila yassarahu di jàng wax yaaram da ko góoral qul haasi sabili daf ko jigéenal kon sabiil am na góor am na jigéen am na yoonu góor ñi mooy akaabir yi nga xam ne bu ñu amee sant yàlla buñ ñàkkee sant yàlla bu buñ wéetee dellu ci yàlla bu ñu wétali ko dellu ci yàlla loolu mooy sabil buñ góoral moom la alquran wax ne walladina jaadu fiina lanahdiyannahum subulana ki nga xam ne nag su amee sant yàlla bu ñàkkee weddi su wéetee jubadi bu nekk ci mbooloo jub mooy leen wala tattabiu subula kon sabil booba dañ ko ŋàññi Cheikh Ibrahima radiallahu anhu nag mu ne fat ugu nga xam ne doon la yàlla di ko may wëllu yàlla yi te li koy maye mooy mujaahadatu def say farata góorgóorlu ci nawaafilu xeer yi asaka ba pare génne sarax aj ba pare def say umra oor ba pare def say nawaafil julli farata def nawaafil loolu mooy almujaahadu Cheikh Ibrahima mu ne li ci yàlla di maye mooy fat u lay may jaam bi u nag bu maye jaam mooy pour mu wéy nekk maftuale yi foog ñaari day am mooy dana góorgóorlu daw yu suufe yi daw yu suufe yooyu ñaar moo la ci dimbale foog nga ànd ak waliyun kaamilun waqun saalih moo tax sa Ibrahima radiallahu anhu faydu bi mbokk yi faydub jikko la e faydub xam-xam la jikko nag am na importance boo xam ne Cheikh Ibrahima na su góor góorgóorloo ba continuer ci almujaahadatu góorgóorlu seexlu yu suufe yi maqaam wi day daal di màgg day dëkk mais keroog boo sagganee bàyyi mujaahada delluwaat ci suufe yi Cheikh Ibrahima mu ne da ngay delluwaat ci nga nga nekkoon lii moo waral nag nga gis ko moom radiyallahu anhu dundam yëpp ay guddeem ay bëccëgam ay dalam ay jàngaleem ñi yaral boppam da fekke ne al mujaahada ak dayu suufe yi moo nekkoon seen xaal moo tax oustaz jikko yu baax yi ku ko bëgg da ñëwaat ci njàngale Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ak ñim yar radiyallahu anhum jami'an ci koy baax yi ko bëgg da nga ñëwaat ci njàngale Cheikh Ibrahima ak ñim yar dinañ ci gën a yegg si léegi mu gën a yaatu gën mais dugg nga bu am solo wan ñu ne maanaam jikko dafa nekk loo xamante ne mooy cosaan euh, te li nga xam ne mooy xam-xam dafa gaar nga di ci ay firnde yoo xam ne duñ ci jaaraat pour rek euh, bañ a lëndëmal wax ci wala ñu jël temps bi ndax waxtu bi bëriwul euh, mu am képp ku ci xam ne rek yàlla feeñu na la maanaam say ñaan dafay reflété ci la nga xamante ne ci la la yàlla feeñu nga wane ci misaal si yonent yàlla Ibrahim ak ku mel ni yonent yàlla Moussa ñi ko yàlla wane malakut samawaat ak ard muy asamaan ak suuf daf ne ko wan ma nu ñuy ñu dee ñi kii ko yàlla waxee moom ma ne ko léegi gis la bëgg waaye nga ñëwaat bu am solo ci indi eh, itey jikko ci jàngale Mawlana Cheikh Ibrahim Niass nga xamante am na bindal ko euh, nga ne dafa ñaan ne yaa nga dawal bëb bi géej xam-xam ci sama topp euh, waaye man nga sellal sama jikkoo mu mel ni man dana am benn question bu may teg foofu ndax baay moom ak matam googu ak ni mu tolloon ci xam-xam ci njub ci ragal yàlla ci wéetal ko ci ci setal li nga xamante ne mooy diggam ak boromam buy ñaan ne yàlla setal sama jikko maanaam dama jàpp ne ñun benn xiir lay doon wala benn jàngale lay nekk ci ñun nu ñu war a mel xëy na dinañ ci ñëw mu mu gën a xóot mais euh, am solo gi mu am solo ba mu rotal ko noonu di ko ñaanal boppam moom yaakaar naa mu nekk taalibe mu nekk lu mu ko war a oo mu bàyyi xelam ci li nga xamante ne nii mooy jikkoom ndax moom suy ñaan te ku mat la ñun ñun lay woo pour ñun ñu jéem a aw ay tànkam comme ni nga jàngalee ne mbaax gi wala jikko yi mënta baax te amul njiit boo xamante ne nii moo koy doxal te moom njiit la boo xamante ne amul sikk ci ne ku ko topp danga baax danga am jikko yu rafet nga indil ñu nag euh, joxoñ bu am solo ci ay bindam ci li mu wax ci. Euh, maarifa boobu nga xamante ne fatxu la bu la ko yàlla defalee moo ne uppinu xéewalu yàlla la goo xamante ni daf koy def ci jaam bi mu koy xëcc yóbbu ko ci xadarab yàlla ba mu war a sax nag ci jubal ak sellal nekk ku yéeg ci maxaama yu kawee wala mu nekk ci yeneen yu suufee ci ni nga xamante ne noonu nga koy ndee oustaz mais ba tey bala ñoo dikk rek pour gën a yaatal waxtaan bi ci ay bindam ak nuñ mën a amalee solution yàqute yoo ci jikko yi ndax euh, ku la doon laaj tey ji nga joxoñ maanaam yàqute jikko yi lan moo ko waral bañ mën a indi ay solution ci ay jàngale al oustaz Cheikh Ibrahima anhu dafa am lu mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ko fa awsaafu qudsiyatun wa qad sama ala rutubil aqwaami min kulli saalifin mu ne yonentu sallallahu alayhi jikkoy qudsiyatu la yore xuluqul Qur'an. Mm-hmm. yes moom la Ndeye wax radiyallahu anha mm-hmm. boo setantalee foofu na jikkoom alxuraan la woon. Mm-hmm. wax ji dafa bari ay ay mafahim. Eh, boo setantalee alxuraan da nga ci fekk ci misaal turu Abu Lahabin muy góor guñ takku safara. mais boo ñëwee ba ci kaamel bi. bojang abu laabin yàlla la jox na tiyaabo <laughs> alxaayit bi firi kabina sobe la boo ko fekkee ca fa mu dëkk waaye boo fekkee xaayit ci alxuraan alif gi fukki tiyaaba la laam gi fukki la ba bàyyi arafam jeex alxuraan a ngoog dañuy fekk koo xam ne taxoon na ka ay kabina mhm. koo xam ne xaalab abu laabi la doon dund nga ànd ak na yi ñu fexe ba waxuma nga taq mais ku la jege sax set kon alxaayit ca fa mu dëkk ak kabine ci alxuraan damm bi firi deret fa mu dëkk ak damm ci alquran am nañ différence bare bëree bëri bëri moo tax boo jegee keppaari saalixuuna yi te Seex Ibrahima radiyallaahu anhu mi nga xam ne moom la ñu waxtaan nii ni tey am na nasibul asad ci jikko yu kowe yooyu lii problème bi nag. oustaz mooy. Mhm. Euh, su fekkee ne illeer bi war a dagg ñax bi moo sax ñax. Mhm. tool bi lu gaaw a set. ñaar dafa war a ànd. Mhm. taalim taskiya yuallimum wa yuzakkihim yuzakkihim wa yuallimum ñoom ñaar ñoo ànd. nit dañ koy defar doo ko jox xam-xam. léegi nag dañu xaw a desal jikko waaw dañu xaw a desal jikko gannaaw jàngaloo xale bi su boobaa dafa mel ni ku ñu yafal kuñ yafal ak kuñ ñu yar du nekk benn nit boo ko yafalee ci xam-xam te ko mën na xam lu nekk mais du ko tere ayibal jaam yàlla yi du ko teree mel nu suufe ndax dañ ko yafal ci xam-xam mais yaruñ ko ci xam-xam mi ngi mel ni xar miñ yafal du la teree mbëkk muy mbëkk borom kër gi mbëkk ay ganam mbëkk ak njabootam te yaa ngi sonn ci guddi ak kooku dañ koo yafal mais yaruñu ko léegi nag euh, crise bi li ko waral sëriñ bi mooy xale yi amatuñ ay repère mhm. ñi doon nampale jikko yi dañ leen woon gannaaw dañu xaw a sori xale yi ñu sëppaleen ñoo xam ne amuñ ay jikko mhm. moo tax boo seetantee xale yi boo gisee génération bu mujj bi amuñ jë amuñ jëmuwaay amuñ melokaan tey mën nañoo weex bu benn waay weexee suba ñu ñuul bu benn waay ñuulee mooy amatuñ ku ñu roy mais pour nag mu baax sëriñ bi laa bu dañu delluwaat ci madaarisu tasawuf yi ndax ñoom ñoo boole riwaaya ak diraaya bu la nas bi jàngale na la bu rëy ñoom ñooy ànd ak yow ba dindi ci yow rëy jàng rëy araam na taxul laa ñàkk rëy jàng ne xeebaate baaxul taxul laa ñàkk xeebaate ndax jàng nañ ci xadis suñu salaa mu ne yakunu fi axiri zamani ubaadun juhaalun wa quraun fasaqatun bés dana ñëw bala àdduna tukki ñaar dana ku mën a jaamu yàlla lool te réer ak ko jàng te réer waxut borom xam-xam bu borom xam-xam du réer mhm. ab jàngkat mooy réer mhm. innama yaxsallaa min ibaadihi al ulama moo tax nag comme nag mm, euh, madrasa yi xam ne mu ñooy tëskati nufus mhm. xam ne alquran waxoon nañu xad aflaha man zakkaaha te dëgg-dëgg mu ta sawifu na yi ñooy fexe ba waaj a jàng nusuus yi ba pare ñu bëri ma bokk ci xusuus yi buñ la béyee taxi yi kese du la mën a jubal ndax jàng nañ ci yonent yàlla Moussa Xadir alayhi salaam hal attabiuka gannaaw ba mu nekkee kalim nekk rasul bokk ci ulul azmi fekk benn waay boo xam ne jaam yàlla bu kenn xamut yu werante ci xaalam yonantu la waliyu la fu dëkk moy kan xamuñ kan la mu ñëw ne ko hal attabiuka na ma jàngkat yi déglu eh, bi mu ne ndax du ma la topp lam ji teg ala an tuallimani mimma ulimta rusdan kon laaju ko masalatan laaju ko benn matière rus la ko laaj rus mooy lan mooy ne jaam bi mel ba jubóog yàlla loolu nag foog nga dugg ci madarisu taskiyati te daara sufiyanke yi ñu jàngal la yar la rëy araam na bëri ba nga bàyyi rëy xeeb jaam yàlla yi araam na bëri ba nga bàyyi xeeb jaam yàlla yi kon fii delluwoon ci école yooya jikko yi du dañ di yàqu xam-xam day nekk ca kanam jikko na ca gannaaw te suñu subaa mbokk mi dara du baax. am na solo trop oustaz dikk nga bu yaatu wax dëgg yàlla ci ñëwaat leeralal ñu importance jikko bi nga indil ñu benn portrait bu am solo ci maanaam li nga wax ne bokk na ci li tax jikko yàqu muy ñàkk repère mooy nit ki ku muy jël comme référence. mu mel ni référence bi am na solo trop waaye àndandoor ak gaañu baax ñi danay dimbale nit ci maanaam mucc ci loolu te àndandoo ñu baax ñi mooy am repère yu baax yooyu jàpp pour mën a jëlee ci ñoom looy doxalee sa diine doxalee ko sa doxalinu àddina euh, nga joxoñal ñu ci alquran ay misaal yu am solo lu mel ni Abu Lahab moomu ku mel ni euh, alxaait bi nga wax noonu lu mel ni itam damm boobu wax dëgg yàlla fañ nekk fii ña ngi leen fay daw fii ñu ngi leen di moytu waaye ñi àndat fii tax na ku ne bëgg na leen a tudd ndax la nga fay jëlee euh, li leen ko may mooy mbootam àndoo gi ñu ànd ak lu baax. mu mel ni kon ñun suñ jamono jafe-jafe ñu am ba tax euh, jikko yu yàqu dafa mel ni ñi ñi ñi ñi war a topp wala ñiy war a jàngale wala ñi war a yare ñoom seen bopp dañoo aajo defar euh, nit ñi toll ci itee jamono ak xool xool boo xam ne gàtt gi mu gàtt tax na sol nit ki mu xam ngay gën a itteewoo ci sonnee jikkoom comme ni nga xamante ne noonu nga ko misaalee mu mel ni kon yefal la ñuy gën a def ci yare loolu na kenn du ci mucc lu dul ko ànd ak euh, nit yàlla yi nga xam ne yàlla tàggat na leen ñu xam ragal ko xàmmee xam li ñu war a moytu ak li ñu war a def ba tax ku jaar ci seeni loxo ci nusuus yi ni nga ko jàngalee ñu tegal la ko it danañ lay yóbbu yar la ba nga bokk ci ñi nga xamante ne mooy xusuus mooy ñi am jagle te mooy ñi naw nawloo leen. Euh, mu mel ni kon Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu dafa nekk sëriñ boo xamante ne euh, xam nañ ko ci loolu boo ñu doon joxoñal tey lenn. ci lu muy oo ndaw ñi parce que ndaw ñi itam bëri nañ jeunesse bi ni nga ko xamee ci Afrique ci àddina bi bëri nañ te oote boo mën di gis ñi cay ëpp ci la ñuy bokk ña koy dooleel ci la ñuy bokk ña cay gën a jublu ci la ñuy bokk mu mel ni kon ñu am ñoom yóbbal boo xam ne eh, danañ ko jëlee directement mu jógee ci seen sëriñ bu leen di orienté ci seen wàllu jikko lan nga ñu ci mën a tegal ci seen i loxo. Euh, Oustaz euh, bu ñu seetlee Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu wax na ci buntab sant yàlla. ne fa inna xutuuti lil anaami saadatun fa yashqa yowman man raani wa xattiya mu ne samay rëdd e, ñoo nag seeni wax dafay làmb ay maani yu bëri mu nekk rëddu xalimaam léeg-léeg mu nekk rëddu xolam e, Cheikh boo toppee mbindam da nga fekk ne mi nga wax xale yi ci loo xam ne bu ko xale yi déglu danañ mën a jëriñu danañ mën a gàggantiwu toujours dam xam-xam tuddee taqdimul aham mi mooy jiitale ëpp importance Cheikh Ibrahima loolu yaram la bi muy bind téere mu njëkk bind tur wi rek yare na mooy bi mu tuddee ruul ëdëb mu jàngale ñaari baat importance su defar ruuxu ak importance su teggin nga xam ne Cheikh ma ñëwul rek pour yem ci jëmmi waa ji waaye dafa ñëw jagal xolam jagal ruuxum mais yëmut ci jox la xam-xam ngay saaga ku la neex ayibal ku neex mais day jël adab def ci biir xam-xam bi kon turu téere boobu rek mbokk yi yar na xale yar na mag ñi e mu waxoon benn wax boo xam ne war nañ koo bàyyi xel nee na ñett ngi nii ci ñett lay baaxee gone yi ca jàngu ci jàngukaay yi afan ñeent ngi nii ci ñeent lay baaxee gone yi ca daara ya mag ñi ca jàkka ya sàcc yi ca kaso ya jigéen ña ca néegu sëy ya kon mi ngi lay jàngal na la jàngal demal jàkka moytul kaso dencal su fekkee ne Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu dundam bi yëpp mara ay maraaxilam benn bu nit mën na ko cee roy e, buy yar ay taalibeem du jël zaahiru sharia rek jox leen mais du jël baatinul xaqati jox leen nee bi zaahiri sharia wa nuuril mubiin rabbi saalikiina moo tax am amul droit ñàkk comportement bu rafet mais amul droit ñàkk yëg boromam ndax foog zahir bu baax mooy jikko ju kawe xam waxin fenn fu ne nga xam luñ fa war a waxee ak ñooy wax ñu nga xam loole leen loo war a wax ak ñoom kon Baye radiyallahu anhu corrigé na zahiru mboolem kuy taalibeem amoo droit sol lu la neex amoo droit wax lu la neex amoo droit mel nu la neex bi topp mooy amoo droit lu dul yàlla ndax nee na zaahiru shariati ak nuurul mubiin ci lay yare yaree sumay taalibe moo tax kum yar ku nekk amatoo ngant pour sa zaahir baax pour sa baatin baax wax na ne soxla nañ xale yi mais du xale yëpp xale yi wax mooy borom xam-xam yu ko wéy ak jikkoyu yu kon xale yi dañ bàyyi xel ne ñu ngi ci péewu xam-xam mi mais ñu ngi ci péewu jikko ma jox la ci benn dars Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu li ëpp importance te léegi ñu foyee ko mooy temps bàyyi dafa nekkoon gu xër ci temps bind bàyyee ñu wan ñu ñu gis ci ci dundam Cheikh Ibrahima Diop mi ngi nettali ne amutoon temps pour dallu ndara ñaari waxtu ci dundam bi gis na lépp jàng jàngale défendre l'islam sëmp dëgg mu wax nañu ne wax ris alal awqaati ay yaxir sin léegi nag te booy def istixra alquran da nga fekk ne béyewuñu benn temps bu ñu war a fooye génn ci wal kon ama droit fo ci guddi wax na wan nahaari ama droit say bëccëg wax na wal fajiri wax na wadduha mboolem temps boo war a fooye rek yàlla génn ci boo bëggee sagane guddi sax lañ wa leyli nga taxawaat soo bëggee sagganee bëccëg saq lañ wa naari nga taxawaat yaa ngi moom demet ba mboolem temps yi jeex mu ngi Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ay bëccëgam ay guddeem benn bu ne fexe na ba sol ci yiw mu mën a jëriñee mboolem jaam yàlla yi kon képp kuy xale nekk ci xadaraam bi amoo foyee sa temps ama droit ñàkk itte xam-xam ama droit tamit ñàkk am comportement bu rafet ndax ni la Cheikh Ibrahima doon radiyallahu anhu warda muy lu am solo dellusiwaat nga beneen yoon ci ay mbindam comme ni nga ko waxee ndax wax na ne texe la ñeel mbindeef yi falam yashqa yawman man raani wa xattiya waaw mu mel ni bind yoo yow indi nga ci yoo xam ne eh, moom la joxoñ wane nit ki ni mu war a fonkee jikko ak ni mu war a fonkee boppam waaye ak ni mu war a fonkee diggam ak yàlla euh, ñeent yooyu nga tuddal ñu maanaam mu nekk ñeent yu am solo yoo xam ne benn bu ci nekk rek euh, bu la waxee xale ca jàngu ba rek yow mi ngi lay waxal donte ne mag nga soo jàngut war ngaa jàngi mag ca jàkka ja boo ko sàgganee ngay ndaw war a jàngi war ngaa dem jàkka ja na ngay mag waaye safaan bële nga xamante ne it fa ñuy denc ñu jubadi ña la maa ngi la koy moytuloo waaye soo dee jigéen itam nga war a sëy yow it na nga dem uti ta bañ a topp ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñi di def li nga xamante ne nii mooy safaan mais nga ñëw ci lu am solo suñ jamono euh, loo xamante ne sama classe képp dañ ciy nelaw euh, muy waxtu ni mu amee solo ci dundu doomu aadama te ci waxtu bi ci la ñuy xajal li nga xam ne mooy tax ñu nekk nit waaye ci la ñuy defee itam ci la ñuy ci xaj euh, xajoo gim xajoo ci la ñuy def loo xam ne mooy tax itam du nekk nit. Hmm. liy tax ñu nekk nit mooy li ñuy xamee xàmmee. am jikko yu baax waaye itam ci li defee li nga xamante ne mooy tax duñ xam duñ xàmmee duñ am jikko yu baax moo tax mu xiir ñu ci ci téere bi nga wax léegi muy ruuxul adab bi nga xamante ne nee nga yittewoo li nga xamante ne mooy ruuxu nit ki comme ni muy ittewoo li nga xamante ne mooy feeñal mbaax ak ruuxam te mooy jikkoom muy ruuxul adab mais téere boobu sax yaakaar naa oustaz booy joxoñ danga ko fekk taaddubun fi zahiri wa baatini yaakaar naa du ma yeggali nga yeggaleel ma bi yarqal ma ulil ma almar ulil mawatini ba tey mi ngi ci ay jikko yu mu war a melloo ak yu war a àndoo. ak yeneen yu mel ni moom ci biir téere bi ci wàllu woowu euh, usas boo setantalee Cheikh Ibrahima boo toppee mbindam ak yaram. koo jël ci mag ñim yaroon. Cheikh Ali Cissé. mag ñu baax ñu nekkoon ci ronam. kenn ku nekk téere la boo xam ne Cheikh Ibrahima moo la bind ci ay tëbbam. waaye am lu xew ci jamono. jamono jamonoy wax lañ nekk. nit ñi tingeeku ci wax xamatuñu waxin xamuñ doole wax eh, wax dëkkee jooy waxtu bu nekk ndax fi ndool dañ koy pasar pasare déglu lan la bay jàngale Cheikh Ibrahima na radiyallahu anhu mu yar boo xam ne xale yi war nañ ko bàyyi xel mag ñi war ko bàyyi xel mu ne kàddu gu ñaaw doom ju góor la wala doom ju jigéen la soo ko tontoo gu ñaaw ni moom sëppal nga ko doom ju góor bàyyi ma ne bu ñu sëyee ay doom yu bon ak sët bon rek ñoo ciy juddoo jigéen lu biiram forox forox forox su ko góor jegewut doom du judd kon kàddu gu ñaaw bu jibee da ngay taalib sa Ibrahima yore ab yaram Seydina Omar moo ne soo bëggee rey caaxaan noppi ci soo def sa Ibrahima radiyallahu anhu ne ku kàddu gu ñaaw jibati jëm ci yow indil nañ la xale bu jigéen boo ca noppee doom doom soo tontuwanteeg moom sëppal nga xale bu góor muy das boo xam ne ndax jamono wax ci lañ nekk mooy wax toujours xale ci daara ji mu ne alquran tartibu suwar ay ibaara la ak xikam boo seetee bi ñu bàyyi waxee ne buñ la buñ lay lor jéggaleel bu leen fayeeku doo leen muñ suuratul kaafiruun mook suuratul nasri dañoo dendee nit ki buñ ko weddee mu muñ rek nasru ñëwal ko keroog boo jeexalee kaafiruuna li nga nekk du dëgg yaa fi yaa yàq diina li nga nekk bidaa la li nga nekk sirku nga teg ci tànk ci dëgg mooy yaa ngi surul kaafiruun su muñee bu jeex rek nga jàng isaa jaa nasrullahi oustaz bu la ndimbalal yàlla ñëwee xeex bi nag foofu la war a taxawee eh, boo setantalee Qur'an bi yont yàlla Moussa bëgg indi solution ci xeetam ñu rey benn xale nag la indi bu ñu rendi ak bakkan bu ñu rey wa is qataltum nafsan bay bay xel baatu xatlu ak inna allaha ya'murukum an tasbahu baqar bàyyi xel baatu zabxu ku ñu rendi ak ku rey du nekk benn taalibe boo ko reyee xarmi boo ko reyee te rendi ko day nekk mbidd yàpp day xaraam mooy fexe ba tàggat taalibe bi sa bopp mais ko ci yàlla kooku dañ koo rey kooku dañ koo rendi bu waxee nga sakk say nopp soo gisee gëmmu ndax léppam day lore waaye bu ñu rendee taalibe bi fexe ba yar jikkoom yar room kooku moo mën indi moo mën indi solution ci jamono. moo tax bañ bëggee dekkil ka deeka dañu ut nag wu ñu rendi moo indi solution ci bakkan bu ñu rey muy das boo xam ne dañ ko war a bàyyi xel moo tax ma ne Cheikh Ibrahima radiyallahu na bi ñu jàngalee la dee leen muñ yenn wax yi sooy dëkkee tontu doo defal yàlla dara kaafiru na bu jeexee nga jàng nasarula ndimbal ñëwal la waaye keroog bu la ndimbal ñëwalee bakkan taxaw ak baneexu bakkan nga jàng tabbat yadaa muy abu lahabin ak jabar ja muy an nafsu wal hawa soo muccee ci nafsu ko hawa rek am ixlaas so lan mooy des ñaan yàlla musal la mooy almuawasatayni su ko defee li bëgg a jàngale rek mooy xale yi nañ bàyyi xel Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu téere bi mu ubbee ay taalifam mooy ruul adabi tëjee sayrul qalbi kon xam ne bàyyi ruuhu itteel na ko mais adab itteel na ko mais qalbu itteel na ko képp ku ànd moom amoo droit yore xol bu bon amoo droit yore roogu sellut amoo droit ñàkk teggin kon jikko yi yàqu na mais li Baye Wade waxoon nga xam ne mooy seetu taalibe yi man maa ko tuddee miraatul muridin moom Cheikh Baye Wade képp kuy taalee bàyyi soo ko royee tegu ci ko yoon mu ne su fekkee ne sunna yonent bi réer na la ay jikkoom réer na la sëppal Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu xoolal waxinam solinam doxinam bindam ñàngalem rek nekk sunna yu bi maanal kalimati radiyallahu anhu am na solo trop oustaz xam naa waxtu bi mi ngi dab si indi nga bu baax maanaam nit ñi ni ñu war a bàyyiwaatee xel euh, jikko yi surtout ci jàngale ki nga xamante ne mooy Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ndax euh, ku ko topp rek mat def la lam doon def. comme ni nga mujjee tëralee ko ñu nangul la ko lool wax dëgg yàlla wow tur ndax euh, ku ñu xam la moom Cheikh Baye Wade ñu ngi ñaan yàlla yàlla gën ko yàggal suñu kanam euh, may ko wér te Baye dafa jàngale woon ne xirli sahban fudala wa xirli min kulli shay'in xayrahu wa kun lii yow yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nag ma tànnal ay àndandoor ay taalibe yoo xamante ne ñu baax lañ ñu gën lépp lu ne rek li ci gën yàlla na ma ko tànnal wan da nga nekk ñeel ma loolu laay ñaan kon soo dee da uyoo ak taalibe war nga fexe ba bokk ca nangu ñaan googu nga xamante ne nii bàyyi ñaanoon na ko te loolu sa ndam lay doon sa ndam lay doon mooy da nga am ngërmaaneem te bu amee ngërmaaneem am ngërmaane yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am ngërmaane suñu borom subhanahu wa taala te bu boobaa danga am ak texe kon nañ bàyyiwaat xel bu baax comportement yi bàyyiwaat xel bu baax jëflante bi bàyyiwaat euh, xel bu baax wax yi surtout ci jamono yu nekk nga xam ne lu ne la nit ñi di wax lu ne la ñuy def ñuy tànn li ñuy wax ak li ñuy def ndax mbóot amatut daanaka te looy wax foog ne kenn nga koy waxat yaa ngi koy wax ak waa àddina te du li ngay wax yëpp rek moom moo war a dem ci biti wala moom la ñu war a tasaare moo war a tasaaroo kon ñu bàyyiwaat xel jëflante yu baax oustaz mel ni ñi waxtu bi jot na yan kàddu ngay tàggatoo. jërëjëf euh, benn baat rek lay tëjee. Mhm. mooy li nga jàng léegi. Mhm. bàyyi xirlee saaban la wax waxul xirlee jamaatan. Ah. nañu bàyyi xel mbooloo mi yëpp la bàyyi ànd ak. Ah. waaye saxabu yëpp dafa ànd ak ñoom. Mhm. luñ saxabu. mooy mel jaara fa mu jaaroon wax na mu doon waxee dunde na mu doon dundee xam-xam jub fonk jaam yàlla yi kon bay waru xirlee jamaatan dam ne xirlee saxaban kon sëriñ ñi ngi gërëm jërëjëf euh, oustaz ñu ngi lay gërëm bu baax macha allah seen i seen seen i juhud jërëjëf seen taxawaay ci guddi yu barkeel yi jërëjëf di ndokkeel tamit rajo bi ak ki nga xam ne mooy mu assis bi ah. di ñaan yàlla yokk leeram amiin pay bi yàlla na yàlla yokk sarafam amiin xalifa bi yal na yàlla yokk wéram mboolem koo xam ne gàmmu si na yal na yàlla may la madad xaas may la mahaba xaasa bi jaay moolana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon lépp lu ci rafet ñu ngi ko sant yàlla ci barab bi la ak barke barab bi lu ci manqué rek doomu aadama matul ñu ngi jégalu di nuyu ñëpp di ziar ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam jërëjëf mbokk yi àndoon ak seen télévision Walfadjri mu nekkoon al oustaz euh, Aliou Ndao moom lañ àndatoon doon waxtaanee euh, jikko yu yàqu yi ak yan enseignement yu Cheikh Ibrahima Niass Baye mën a ci lañ mën a sukkandiku pour mu nekk lu baax wax dëgg yàlla muy waxtaan bu am solo waxtu bi moo ñu jot rek. Euh, di ko ñaanal yàlla tawfiq ak fan bu gudd ko ànd ak wér ndax njëriñ la ñeel li nga xamante ne mooy askan wi du ma wax taalibe waaye njëriñ la ñeel askan bi yal na yàlla defal ko loolu di jaajëfal techniciens yi nga xamante ne ñoo àndoon ak ñun di jaajëfal bu baax euh, mbokk yëpp fu ñu mën di nekk ci Sénégal ak ci biti Sénégal di leen dikk euh, daje ci kanam tuuti rek dans quelques instants ak beneen invité ak beneen tomb waxtaan ci waajal gàmmu international bu Medina Baye wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di Ibrahima نحن نؤمن بإبراهيم يس إبراهيم يس إبراهيم يس إبراهيم يس خليفة الأعدناء أؤمنوا بإبراهيم يس نحن نؤمن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 mawlanan wa mawlidu bi saraful waaji yonen wa mawlidu bi saraful waaji yonen